bu guddee ba guddi lool fooy fanaan mbokkum yaayam Seex Super Jamono lay man ana Seex Super Jamono yaay la sakkal baay baay la sakkal yaay kii mooy kan nga ne kan kii mooy Alioune Seye borom Géejawaay ana ana Alioune Seye Alioune ana Cheikh Super Jamono sama doom ji laay woo mbokkum yaayim Bibi Njaay mbokkum yaayim safara laay woo de Cheikh Super Jamono dakk naa ñama amoon ngir yow xotti seeni kayit ca mbokk yi Cheikh Super Jamono mu ngi noonu dugg ci fii ci Géejawaay ndaysaan mbokkam njagañaaleem xaritam am jàmm yi ñëw nañ topp ko moom Cheikh Super Jamono ndeysaan mu am combat bu mag dox ci digganteem ak capitaine Dina bu yoof ndeysaan asiko yaa ngi noonu lii mooy ambiance làmb na moon na lii Cheikh Super Diamono ngi noonu doomu Géejawaay baa ngi noonu ndeysaan ndeysaan ma may leen asiko tuuti yoole yoole yoole si bérek si na tey ngeen dee Production, c'est là ay bo Alioune Seye numéro 2 <laughs> ndeysaan siyaar naa la fa naka mu ba yaayam jàmm sant nañ baax a baaxee Fall. félicitations ci ndam li ngeen am démb. waaw ah, merci merci merci. lan la dëgër numéro 2. lan la dëgër mi ngi gàlleem. combat bi nan ko waajalee Alioune Seye. waaw combat yi waaye comme ni ñu doon waajalee yeneen combat yi rek bu raw sax mais yàlla ñoo kay dogalam nii la waroon demee mu demee nii ndax ndam du tuuti quoi sant yàlla rek. waa démb bi ngay dugg si ci lamb ja xalaatoon nga ni làmb ji fii lay mujj. wallaay laa si musuma koo xalaat ndax loolu lu ñu liggéey la lu ñu préparé woon la mais ndeke li ngay bëgg ak li yàlla dogal xam nga day ute daal xëy na nii la ko suñu borom bëggee bëggoon nañ ndam lu gën a leer lii mais tamit lii ci làmb la bokk ci ndamu làmb la ndax nit dina war a bëreeg nit sax du ñëw ñu yëkkati loxoom jox ko victoire asama koy xam ne ñëw na def ay effort li ne si làmb yëpp moo ko def ba yàlla dogal dañ ci sant yàlla rek amuñu leen luñ ci wax. ñëpp nee nañ démb géejawaay dañoo bëggoon jël seen indépendance ci Eumeu Sène mu tombé woon nag le 4 avril daa mel ni géejawaay mujjee naa moom boppam naa moom boppam ndax ndam noonu la waroon demee mu demee noonu sant yàlla rek di ñaan yàlla xam nga Sénégal jëm kanam Guédiawaye jëm kanam daal waaw. yow foo nekk. waaw maa ngi mën sama ruq rek di entraîné ku ma xam ne xam ne man ma entraînement laa ak yi mais wax dëgg yàlla gars yi di am combat te aw ma combat loolu moom naqar na ma trop barki maam Serap Fall. mais Alioune Seye lan mooy problème bi yow mbëri yee lay daw wala yaay daw mbëri. wallaahi la si soo xamee nga wax ma ko. waaw boo waxee sax day ay kilo mais du loolu. dama damaa bokk ci làmb damaa war di bëre barki maam Seera Fall. te wuli maa ngi dégg mu naan ma Alioune Seye daa war a wuti Bayre est-ce que Bayre bi du. du question da du question Bayre sax am na si ñoo xamante ni tëj ñu feen te ñu ngi bëre chaque jour kon affaire dama xamul lu muy nuru mais sant yàlla rek xëy na ab bee jotagul rek ndax yàlla moom xam nga li muy bind bind na koo pare bu jotee rek mu def ko yàlla xamul lu war lu jot la xam. est-ce nga xool xale yi nga xamante ni ñoo fi gën a të nga tàllale loxo ñu laal ak yow comme say génération ñemewuñ la wala ñu la féete mag baa jili man sama carrière doo ko bëri ay xale wallaahi la azim bëri naa samay sept combats yoo xamante ni ñi ma ci bëri lépp maa leen raw mais mënu ma nekk nag chaque jour da may dëpp te man damaa bokk ci làmb bu dee bëri mën naa ko bu dee supporter am naa ko kon lan moo des xaw ma comprendre ma sax ñu bëri loolu question wala ñuy laaj moo kii lan moo kii mais garaawul man moom damaa wàkkirlu si yàlla te man Baye Fall laa nekk ndongolu xeebu dama xam ne lépp lu jot sama jëmm ji barki maam Cheikh Fall kenn mënu koo téye voilà. sa diggante ak père Khadim Samb lu ca amoon ci sa contrat boobu dafa mel ni jeex na wala. waaw loolu waa jeexoon na. jeex na sanction yi jeexoon na ci ci côté CNG. libéré woon nañ lépp affaire yi jeex na kitoo nañ. waaw. léegi li des mooy promoteurs yi seet si la nga bëri. waaw promoteurs yi seet si ma bëri am ma doon sax. mais xam nga par la suite affaire yi mujj en tout cas waaw. su combat yaakaar la woon. waaw doon nañ fi dox maag góor so doon fi dox maag doomu dangu. ak yaa góor so. waaye amoon yeneen combat yi ma doon junj nag bay man ba léegi dara kii woo ko si. mais yooyu bu ci ñëw nga jël. waaye déggu la wa wax man pare naa. pare naa bëri rek laa bëgg. mais nañ ma jox combat bu raisonnable xam nga ma bëri quoi ndax wax dëgg yàlla si làmb laa bokk jili xool laay waxee ni barki maam Serap Fall. mu neex boo bàkkoo mu neex. wallaay laazim gars yi gënuñu ma mën po mi chaque jour ma wax ko mais doo comprendre sax dañuy jël ñu leen neex di leen tëggal ñoo xam ne wallaay xooloo leen ci bëri xooloo leen ci supporter mais doo comprendre day dem ba ne aan yow est-ce dem sax dem jaayi konkorok mu gën a yomb barki maam Cheikh Fall doo xam lu muy nuru wallaay lazim wër nu rasulaay sunu sunu sunu àdduna yëpp dañ koo jël def ko ci làmb te xam nga Sénégal dofu ju jine jàpp leen xam nañ ku mën a ku mënul xam nga noonu la demee daal mais sant yàlla tey ma ñëw fekk la ci open press Cheikh Super Jamono mu mel ni Alioune Seye xale yu bëre géejawaay ba man sax su ma doon bëre di nga ñëw assisté ma jàppale ma sa diggante ak xale yi lan la. doomu géejawaay waa nit kay li ñu la jox rek moom ngay delloo wax dëgg yàlla xale yi dañoo nekk ay xale yoo xam ne dañoo neex a àndal jox ma cër kenn du si am combat te waxuma diw lañ may bëgg jox léegi loo si xam ma ne la lii ak nii ak ni ak nii kon cër boobu noonu nga delloo ko loolu nga delloo mooy seen yi lañ am bu leen ko xeebal nga ñëw teewal leen ñu lay gis rek même boo leen conseillé joxoo leen ñu lay gis rek loolu da lay dal seen xal loolu waral suñu teewaay wax dëgg yàlla muy mbër bu mag ndaw yëpp ñu leen yemale képp ku ci am xew te am jot rek barki man Serap dañuy teew waaw. ma lay jaajëfal bu baax. taw taw feex ma la dina ko dégg. ay faal bi Alioune Seye numéro 2. a puusal fii waaw ndaamale. Thiandoum. waaw doom yaay. sant ak muñ ak moytu rek. waaw sant yàlla bu baax. dox actuellement. ah ca la ma daa dox rek. mooy lan. ah nekk ci kawam rek dang dangi rek te toog ji xaar rek. amagoo combat. non ñu wax ne waaye amaguñu quoi. yaa kan. ah booy xam amul boos lañ may wax ma leen jël moo tax du ma si doon tur sax. boos yow Brise nga fi daan bëri ci démb de Brise nga fi mujjee ah, la di. non du aju sax. il est temps il est temps dafa dafa jot. dafa jot ma bëreeg samay morom wala ma bëreeg samay mag parce que lamb ji mënul ku ñëw la nga jox la ku ñëw nga la. su ma bëree ba maa ngi neuf combat kon nag il est temps léegi ma siibu sama carrière xool si ki ma war a jël ku ma warul jël nekkatul ku ñëw rek ma jël léegi. actuellement kan moo gën a nekk sa xol. actuellement ñoom caatu yoon fi ñoom kéwal gaa yoon fi. caatu yoon kéwal. waaw. mooy ñooñu wex nañ de. waaye man lu saf kaani laa bëgg saf sap buguma buguma lu oye buguma lu ndaw. Ah. waaw. caatu yoon ak kéwal instant actuellement kan nga ci gën a bëgg. ñoom ñaar ku ñëw baax na. kéwal moom dafa wex moom. ku ñëw baax na non non. moom kenn du ko laal. waaw loolu laa bëgg nag damaa bëgg mbàccam xam nga combat bu ma jël ñu ne tey nga dee moo tax ma bëgg a jël boo xam ne nag ñëpp dañaa ma taanam ci génn ma ne wala may kan waaye ñëw na si nit sama doomu day Cheikh Super Jamono di ñaan yaa ko yàlla may ndam ci barke alxuraan jaajëf champion safara wala àjjana non àjjana ci biir jaañu mais biir lamb ja baal ma tagal gars safara gu tar ci loo nekk maa ngi sant yàlla baax tey ma ñëw fekk la open press bu site euh, Cheikh Super Jamono ban relation nga mo ak ñu bokk écurie nekk ay morom ay naataango ci bi mu yaru jox ñëpp cër waaw te te làmb dafa nekk si kanamam xanaa ko ñaanal suñu borom combat bi ci kanamam suñu borom defal ko ci ndam lu kawel njortam ah est-ce dina yomb. non Cheikh ndaanaan la bëre kan la gisoo nga capitaine dina mi mu am xam nga ko mais kooku paa la tey Cheikh Super Jamono xale la gisoo Cheikh Super Jamono tournoi yi mu jógee xanaa nag bi jógee nag bi tekk nañ ko sax bee ngi woon fii yeewee Cheikh dafa compétir moo tax tiitaluñ ko dara. koy ñaanal ma incha allah suñu borom defal ko ndam rek xam na boppam te yab nañ ko Cheikh yabuñu ah yow foo toll. waaw man maa ngi waaj combat jour Abdou Diouf ngir bi ci laa war a bëree. yaakaar eh maag Ambroise. la ilaha illallah Ambroise bu weex mi. man du ma Ambroise bu dóor bu dëfee. man du ma ragal. seetaan nga samay combat. man je suis prêt man athlète laa du ma waaj combat damay fekk chaque jour may pare. xanaa di ñaan yàlla suñu borom defal sama adversaire jàmm defal ma jàmm ba jour ji suñu borom defal ma ndam ci kawam. Ah. yee jaajëf Safara. le grand champion. waaw waaw. Mbaye Diop sama turandoo Mbaye Diop. waaw nee na combat bi combat am la. waaw Mbaye maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee waa Guédiawaye yëpp. jaajëf gaynde. Bou Siteu waaw sama xarit nuyu ziar naa la ziar naa la tawfeex baa yaa ngi am jàmm waaw maa baax a baax tey ma ñëw fekk la ci open press Cheikh Super Diamono seen relation yi ñaar la waaw sama relation moom rek muy ba ñu nekk xale xam nga daa nekk Dakar jaay xam nga mu nekk démb ba ñu nekk booy ndaw xam nga ba tey yàlla dam ñu tey ñuy dem ba yëngu si làmb xam nga kon loolu kontaan la moo tax bisam dañ ciy teew ndax suñu bis tamit comme nii dañ ciy teewee wallaahi waaw bis bi muy préparé diggante ak capitaine Dina nan ngeen ko waajee waaw capitaine Dina ni nga ko waajee muy waajoon nañ ko tamit si biir Covid bi yëpp di liggéey lu métti waaw ndax seex moom ku xam rek xam ni boo gisee état bu mu yor xam dafa liggéey waaw ñu ngi koy waaj nag waaj bu am doole la diis ñëw ñu teg ko lu métti dem ñibbi kooku tax ñëw sax jóg wallaahi. xeex la yombee wala ci bëre. non combat bi dinañ xeex waaw dafa nekk wàllu xeex Cheikh liggéey nañ ci bu baax a baax a baax waaw da gëm nañ dinañ xeex xeex bu leer te dina ko dóor mu daan soo moytu sax wallaahi. am nga bis bu rëy Malick Ndiaye yokku na état bi ba mu gën a yokku. waaw ah, man loolu ma arrangé ndax man Bou ku ko xam-xam ne Bou Siteu daa aay si luur xam nga kon man damaa soxla luur na Malick ñëw ma teg ko lu métti wallaahi. xeex moom da koo mën Malick Ndiaye bëree waxaatawu ma ko. waaw ku si mel tamit xam nga Mouhamed Ali ñibbeegul moo doon préparé la de guerre te gis nga démb la de guerre lu mu indil ama seen da koo dóor tpr bi yëpp te moom instant yii nee na dafay jàppale ba amuy dellu France waaw di la wax ne Mouhamed Ali maa ngi rafet bi nga def waaw gis benn ndaw boo xam te ne xam nga dafa nekk si yoon di bëre koo xam te ne la nga ne tey booy bi wala maa dem naa ko jàngal loo xam te nii gis nga démb la da ngeen am seen lu mu def la da ngeen. ah ko def xoo démb gisoo. est ce que loolu la te parce boo xoolee maanaam ñooñu mel ni bu Siteu tey bu Siteu koo xam-xam ni bu arbitre ne si géew xam nga du ma ne foofu di léetoo di jëmale fajar. man damay ñëw teg lu leer waa démb nag amateur yi ñu kontaan bëri kontaanuñu ndax xaaruñu si woon si ñaari mbëri lii xam nga di wax ne tamit xam nga lamb maanaam ku si nekk da ngay jóg waaj sa mboq xam nga niil maanaam moo gën defet waa taj yàlla def na par effectivement lañ gagné kon la nag dañ koy suéde bu baax a baax waaw moom sa mbokku see soose la waaw di nuyu sa mbokku soose yëpp. waaw yi lakkal ma ko di wax ne ofoo na séeréer mi sunu naa. soose la non soose bi man dama dama xaw a sàdd soose mais fan yii naa jàngaat. ndax am na ñoo xam ne ñu may jàngal. waaw ñu may jàngal soose bu baax a baax. lool ci séeréer bi. waaw di wax ne au séeréer mu sunu naa noonu njëkkoo njël xam nga waaw di wax ne maanaam dañu ma ñaanal maanaam ñaanal mu gaa bëgg a mu daanu. wallaahi di yokk ñaan bu baax di bëggee waa Guédiawaye bi ñëpp waaw di bëggee tamit Cheikh Super Diamant yàlla na ko yàlla defal ndam tey gis nga lii rek yombul waaw maanaam Guédiawaye lii la 100 pour dafa war a dëggu wallaahi. jaajëf attention Boy Niang ngeen ma laajee ci sama doom Cheikh Super Jamono dinaa ci sa tudd noo tudd Maari Mbow laa tudd waa dëkk Cheikh Wade maa moo Modou Gissa maay togg togg yi su dee bëreet chaque jour maay togg ma di ko ñaanal ci kattun yàlla yonent bi yal na ko yàlla may ndam yal na jaar fam daan jaar. loo koy toggal. ceeb yi neex. ceeb bu ceeb yàpp laay togg mbaxal mu saf ràcc mu jëm ca kaw maa la wax lii kaani ca côté ba maa la wax lii dara du doy barke nabil Moustapha def ko ba mu très bien may ñaan sama doom ji yal na ko yàlla may ndam yal na jaar fam daan jaar teral ndeyam rek ko tax a jóg seex bëgg na ñëpp bëgg na mag ñi bëgg na ndaw ñi amul sens interdit lu mu am alalam doomu aadama yee ko moom barki Seydina Mohamed man ma feebar opéré moo ma moo ma jëndal ay ordonnance di ma jox may naan meew lépp guddeeg bëccëg bëgg sama doom nag moo du gisee wóolu ko moo koy téyel xaalisam du ko contrôler du ko xool ma koy ñaanal yal na dund ba dégg roi des arènes fi ñoom Balla gay nekk yor roi des arènes yal na ko dégg yàlla mën na ko am na ko yal na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baax rek am solo ci kanam. yaakaar naa la. waaw ah, delloo siyaar bu baax. Saa Kajoor si yow. Kajoor numéro 2. waaw waaw. Ah, rakk nga ci Saa Kajoor. Saa Kajoor sama mag waaw. Ah. waaw. lu ngeen bokk yee ñaar. ñoo bokk ndey ak baay. waaw waaw. Euh, yow ñaata ban ban nga dugg ci làmb ak kañ nga ci dugg. man yaakaar daaw laa dugg ci làmb de. nga def ñaata combat. daaw daaw daaw yaakaar daaw jéeg laa dugg ci ko daaw jéeg laa dugg ci làmb. sama première sortie ma daan mais sama deuxième sortie dama ñàkk. waaw sama troisième sortie tamit waaw mooy loolu c'est la même chose sama quatrième sortie moo ñëw maa kii nu mu tuddati kii nu mu mooy damay fàttali turam. dina waaw ma ñëw maa kooku suñ sortie arène nationale bi ma am blessure nag ma am déchirure ma ñëw ba ci lamb ja mënutuma bëri nag waaw mais instant moom maa ngi fépp maa ngi ci entraînement bu baax a baax di xaar combat nag waaw yéen a ngi déggante. Sawer démb rek démb rek ñu ngi déggante. ban conseil lay jox ci làmb ak ak li nga xamante ni jot na ci dund ci làmb ak fa mu yegg ci làmb te yàlla suñu borom yeggalewu ko fa. waaw Sawer moom suñ mag la waa mag ju baax si ñun mu ñuy conseil chaque jour xam nga lu war ci ñun lépp tamit mi ngi koy def waaw di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waaw moom nag ku ne xam na Sawer am na lu mu def ci làmb mais am na lu mu des mais lu des nag incha allah yaa incha allahu rabbi man ko war a man maa ko war a àggale ci kàttanu yàlla maa ci tànkee waaw di ko ñaan yàlla defal ko jàmm yàlla may ko wér ba mu ñëwaat ci ay njabootam. du lu bees ci làmb nga jël sa mag ngeen bokk ndey ak baay nga tuddee ko sa bopp muy Sa Cadior a 2 lan moo la gën a neex ci Sa Cadior en tant que sa mag. mais Sa Cadior lépp ma neex ci moom lépp lépp moo ma neex ci moom wax dëgg fa yàlla waa lépp ma neex ci moom waaw. ban écurie nga nek man maa ngi Mor Faram. ku la bëgg a tëggal combat tay tay tay tay pare tey ku ma bëgg a tëgal combat tey tey pare naa man pare ci côté bépp barki sëñ Bamba. booy nga bëgg. non man du ma tànn benn adversaire man ku ñëw ma bëreeg moom non sama morom rek waaw ku ñëw ma bëreeg moom man moom xooluma kii xooluma kii man daal na doon góor rek waaw ku ñëw ku ñëw ma bëreeg moom ci kàttanu yàlla waaw waaw. jaajëf. rang rek. géejawaay la ñu yaroo géejawaay la ñu juddoo. géejawaay la ñu yoroo fi la ñu fi la fekk baax cosaan Cheikh Super Jamono cosaan fi maam bàyyi woon yaa war a dekkal cosaan yi maam yow doomi géejawaay nga eh, yow doomi Géejawaay nga mbokkum yaayu ama seen mbokkum yaayu safara ay waay yaa baax yaa baax yaa baax yaa baax laay lay la la wana la yaa baax yaa baax waaw waaw yaa baax yaa baax waaw waaw ay lay la la boy dafa man ragalu ma loolo yoole yoole yaay doomi géeja waay waa chef jamono yoole yoole ca mbokk yi Cheikh Super Jamono mu ngi noonu dugg ci fii ci Géejawaay ndaysaan mbokkam njagañaaleem xaritam am di jàmm yi ñëw nañ topp ko moom Cheikh Super Jamono ndaysaan mu am combat bu mag dox ci digganteem ak capitaine Dina bu Yoof ndaysaan asiko yaa ngi noonu lii mooy ambiance làmb na moon na lii Cheikh Super Jamono ngi noonu doomu Géejawaay baa ngi noonu ndeysaan ndeysaan ma may leen asuko tuuti yole yole yole si mbër yegsi na tey ngeen dee lan nga fas yéene dundal jëm sa adversaire. waaw bisimilah rahmaani rahim bisimilah rahmaani sigil xool kaay sant yàlla jub si yéen a sant samay ñaari waajur sant yàlla bu baax a baax président de la sant samay waajur sant amul géejewaay sant daal amul géejewaay Cheikh Wade ma leer Assane Ndiaye ma leer Sane ma fi yaa am bàyyi ma kenn daal amul géejewaay doomu géejewaay laa maa leen di fay tamit maa ngi ji sant kii tamit xaar ma la sekk dina sant. waaw mos wa xam nga sant ñëpp waaw man ma Assane Ndiaye ma waaye. loolu diversion nan ngay waajal su combat yaa combat bi bor la boo déggee bor la bor bu mu amee géejewaay bor bu mu amee la ci ma am seen mbokku yàlla ma tegal combat ma ñëw ci suñu saako suuf si suñu saako ci suñu laamu la war a kon bor la bu mu amee géejewaay bor la bu mu amee yàlla def wala li jëm ci wàllu. dama ne peut-être ñu naan kàmm daal ñu ne woon moo daal doomu daal maa ngi xam lu daal kàmm du ma lu yomb déedéet dañ ne moo daal doomu daal daal di am xam lu daal ku daan champion rek man damay bëgg a bëreeg yow pour daal la man man champion laa bëgg a nekk. lan nga koy waajalee bis bu baax. ngay tërëñ tërëñ. bu neexee yàlla si kàttanu yàlla si tool. fekkee ba dimanche incha allah si kaw bi si sama waa koñ waa géej waaye dañ maa yónni yàlla ci ma taxawal ko. wolof daf leen lu man doon def ba déwén nekkee ba li des seen super jamono sa combat bi passé yaa ngi jënd boori kàddu lala daloon si bëre si bëre génn sa kër jàpp sa bopp te yóbboo ko est-ce que yaa ngi ciy bàyyi xel wala yaa ngi continuer di yor at yi nga xamante ne yaa ngi ko yor. waaw wax dëgg yàlla loolu lu war a xam la rek essai la yàlla suñu borom boo loolu loolu day am sama carrière mais loolu dootuñu dara ci incha allah ci kàttan yàlla suñu borom waaw ndax bu ma paree sama combat ma jënd ay billet ay 1 million et quelques billet jënd ko ñoo ko suñu laa ko ma yaay sama laa ko loolu dara ci bàyyi waaw waaw ak saa boo doon wax capitaine bi waaw waaw kooku dama koy sant rek dama koy santaat bu baax a baax parce que suñu gën a la quoi dañ koy jox cër bi moom mais bu am si biir moom yooyu day nekk waaw dafa ngay wan ni liggéey ñu koy santaat tamit ñu jëriñ ko waaw bu sibee man li ma koy wax mooy bu mu foowee xelam quoi bu mu jàpp ne combat bi day yomb déedéet combat la am te man jàpp ma ne day yomb si ma dama koy jox respect mais bu am si biir fi mu fekk fi mu taxaw laa ko fekk ngeen koy noonu dama koy yem. ñeme ngaa samp jaaga taxaw capitaine Dina di xeex 30 minutes wala 15 minutes yoo xamante ne da ngeen di jàmmaarloo di diraay. xam nga loolu su ma ko ñeme woon damay bàyyi lamb kon ma yeb waa Guèye waay yeb sama waa koñ xale laa damay liggéey. ak damay waar la xamante ne tey jii dama koy liggéey waaw. waar la ko ñoom sax participer ma naan mënu ñëw bi rek participer ba may waar la wooteel seen bopp say am di jàmm di say ñebe ji waaw di leen santaat sant waa di leen sant waa Wassare di sant ay Wassare di santaat Géejawaay di santaat Géejawaay bu baax a baax di sant sama yaay ma dem di santaat sama yaay bu baax a baax di sant sama maam sama yaay ñoom ak ñoom Faris sant soxna yi di sant Ousseynou Ousseynou Omar Fayam sama waaw sama fayam amul fayam amul fayam sama conseil la sama lépp la maa koy sant di ko gërëm di sant sama papa président kooku aw ma fayam sama papa la sama lépp la président aw ma fayam mooy suñu président mooy suñu lépp di sant bu baax a baax a baax. Boucher aw ma fayam ndax waa Guédiawaye gis nañ Boucher li mu def léegi léegi léegi léegi waa Guédiawaye gis nañ li Boucher def léegi léegi léegi la ñoo may ma xaalis bu bëri kon kooku noonu amuñu fayam Guédiawaye lépp lu ñuy xew rek Boucher bu ko gars yi woowee day ñëw kon Boucher aw ma fayam waa Guédiawaye amuñu fayam xam nga di woo sama mag sama xarit buy xam nga di ko woo mu ñëw jàpp si combat bi dama xam ne ñun waaye rakam lañu waaye waaye lépp lañu waaye léegi di sant Youssoufa Touré la la lumière du Sénégal lépp sarax la gis nekk Sandaga ñu koy sant Youssoufa Touré la li ma yaa dama mën a génne moo tax ñooñu dañuy jàppale ci combat Youssoufa Touré la ak Omar Gueye ma leen sant ak Sakho Sakho saraxule ma koy sant bu baax a baax leen loolu ñoom ñëpp la ñëw jàpp si combat bépp sarax la bu nekk Sandaga ma ngi lay woo ñëw jàpp combat bi ñoo xaali xaali nga ñëw jàpp si combat bi xaali borom Sandaga di nuyu waa Casamance xam nga waa Castor xam nga di nuyu waa Casamance di nuyu waa Castor ñëpp ñi may ñaanal Casamance maa ngi leen di nuyu ko passage di nuyu sëñ Moustapha dama dégg Yahya waaw li may wax kii bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci seen taxawaay bi xam nga dégg ñu waa waa Guinée waaye bu baax a baax ñu monsieur le maire Baye ñu ñëw jàpp si combat bi ak suñu yaay Tata Marème yaa ngi dégg di woo Mour Faye ñu ñëw jàpp si combat bi Mour Faye da koy woo ñu ñëw jàpp si Guèye xam nga bépp autorité bu nekk Guédiawaye ñu ngi lay woo mu ñëw jàpp si dañuy bii bii bii xam nga ñoom leen woo ñu ñëw jàpp si combat bu baax a baax amuñu fayal ñu ngi dégg conseil ñu fay ñu ñëw jàpp si affaire yi bu baax a baax Adama Marème ñu ngi lay woo mu ñëw jàpp si affaire yi ne damay jiw mais bépp autorité bu nekk Guédiawaye Cheikh Super Diamono moo lay lancé message soxla ma xaalis soxla ma dara dama leen ñaan ngeen ñëw jàpp si liggéey bi bu baax a baax baax liggéey rek laa soxla soxla ma dara soxla ma xaalis wa taala képp ku ne Guédiawaye su ma liggéey damay jug mais maa ngi woo si combat sama rakk Moustapha sama rakk Moustapha day jàpp si affaire yi bu baax a baax a baax day nekk sama rakk bu may sama rakk yi ama seen fay ñoom Maman Ndiaye di nuyu waa Guédiawaye tamit xam nga di leen jégalu waaw di jégalu ñëpp ñu doon teraanga ñu leen di jégalu xam ne seen doom moo ayoo ñëw ñaanal ñu gis tey ñu dimanche incha allah le 11 avril ñëw dinañu ñu moom. di nuyu xaarim xaarim aw ma fayam xaarim sama papa aw ma fayam di nuyu góor gi ma fi yaatu ñoom Pape Malick ma fi yaatu ak ñoom